alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu almursalin sayduna muhammad sallallahu wa sallam rabbi israh li sadri wa yassir li al amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa yi nga xam ni yéen a baaxoo di topp saa ah, di bëggee seen émission bu mag bii nga xam ni tabaarakallahu mooy tànnu mag ñi tànnu mag ñi tey ñu ngi fii ci Kër masaar ci unité 9 fekk fi jëmm joo xam ni ah kenn la ci kilifa yi yàlla yàlla yi ñu di ko wax Cheikh Souleymane Niang Cheikh Souleymane di taalibe Cheikh Moussa Cissé njàmbi daal tey ñu fas yéene sëkk ak moom jotaay waxtaan ak moom ci lu bare bari ci li nga xam ni moom la fi kilifaam gu mag googu bàyyi Euh, tabaarakallaahu muy liggéey boo xam ne ñu bari ñu ngi ci biir euh, ngir leeral ñi nga xam ni néew ni ci waaye ni ci nekk liggéey boobu ni muy doxee euh, moom lañ toogal ni ñu bàyyi ko mu nuyoo sëriñ bi ñu wax la asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu. waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit ñi. mbokki jaami yàlla yi mbokki Sénégal mbokki àdduna bi yëpp ñu ngi leen di wax mbokki TFM ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu e, ñun dey yàgg nañu am mbégte ci yéen ci léeg-léeg seetaan boo xam ne ñu ngi leen koy seetaan gis ne seen itte seen bëgg-bëgg mooy lépp luy dëgg mu feeñ ndax jamono ci dëgg la tàmbalee ci dëgg lay mujje dégg na ku la ko wax wax na la yàlla kon nag ñu ngi ndokkeel seen kilifa ga ca kaw mu Yuusu Nduur bu ci yow mi toog ak ñi nga àndal ñëpp marhaban bikum ñu ngi leen di dalal yàlla salaamaaleykum wa rahmatullah tabarakallahu Cheikh Souleymane euh, mi ngi noonu émission la boo xam ni euh, TFM religion di ko amal waaye àdduna bi yëpp di ko bàyyi xel muy émission boo xam ni mag ñi rek la ñuy waxtaane ci réew mi ak bitim réew ñi nga xam ni dañoo jël seen bopp jébbal ko yàlla euh, di marale nag jaam ñi ci yàlla di leen yóbbu ci yàlla subhanahu wa taala Cheikh Souleymane tey jii ku tudd Cheikh Souleymane tudd Cheikh Moussa Cissé Ndiamé jëmm jooju ji Cheikh Moussa tey jii buñ ko bëggoon a xam euh, ci nga wax nu cil cilaam euh, ak cosaanam waaye tamit wax nu diggam ak ki nga xam ni mooy Serigne Touba ñu doon liggéeyal euh, nooy def ak ñun. alhamdulilahi rabil aalamiin sëñ Modou Mbuub laaj nga ñu laaj boo xam ne laaj bu ñu neex la laal bu ñu bége la. <laughs> laaj nga it lu mat a laaj Cheikh Moussa Cissé cosaanam ci fi ñu ko nettilee mooy ku ñu wax Mamar Khourédia Cissé mooy waajuram bu góor mm-hmm. waaye ci jamono mag ñi ki nga xam ne moom lañ moom lañ ko tuddee moom ñu tuddee ko musukura yàlla dafa defoon mu nekk fajkat bi mu ñëwee nag ba dëkk bu ñuy wax jañeel boobu ay buur lañuy def buur boobu mu ngi santoon mbooj jañeel la nekkoon ci jamono boobu bi la ko tubaab bi sampoon mhm. moom nag bi mu ñëwee fanaan ci penc mi yendoog ñoom fanaan ñu ne ko ah, buur bi kii de benn sëriñ la mu ne ko sëriñ bi de dama bëggoon dama am fii benn jigéen goo xam ne ci kër gi la ne dafa am goomu deexaale lañ wax mooy goom yooyu nga xam ne bu la xasee dal rek jeex na mu ne ah, am na sëriñ bu ne ci penc mi de buur bi ne ko na ñëw buur bi waxtaan ak ndax buur dafa amoon kersa am tawat wu mel noonu mu nekk ci giir këram te yàlla jox ko lu nekk te mënta faju buur yi dañ ci amoon kersa ci jamono boobu mu nekkoon nag jigéenam xamul nu muy def fu ne dem na fa góor googu nag bi mu agsee mu sukkura lu lañ ko tuddee woon bi mu agsee nag ñu wax ko ko mu ne mën na koo faj mu faj ko bi mu wéree nag buur bopp ba dafa rëy te booba xare dafa metti soo amul sëriñ bu am doole rek daanaka koo xareel mu gañe la mu gis ne kii gën a borom xam-xam la te mën na lii naa ko jël noonu la ko jëlee may ko kooko mu faj may ko xore jambóoj xore jambóoj moomu nag moo dem ba am ci musa mm, mm, mi moo am moo am Mamar Khoreja Mamar Khoreja mi moomu nag tey moo jur Moussa Koura Mamar Khoreja nag ci jamono xare moo fi nekkoon dafa nekkoon ci xare Birane Cissé bi mm-hmm. biñ nekkee ci xare Birane Cissé bi nag bu yàlla àtte mu tëdd benn guddi mhm. Serigne Touba jël ci moom dara nee na def ko nag ci kaasu coy kaas yooyu mag ñi ñoo ko xam suñ ko ci xësee def nii foo toll dangay ngay seen li ci biir kaas bi waaye doo ko mën a jot nee na nag waaye nag xamut fan la nekk bi xare bi jeexee nag loola feeñuwaat ko mu wax mag ji rakk yi mu ne ko man nag xam naa ne mbir mi ma doon feeñu dinaa jóg dem toppi ko Makumba Khoreja nag ne ko man xam naa ne mënatumaa bay maa ngi ñëw maa ngi dem ndakaar boo Dakar ni mu mel ni mel ko booba lébu yi rek ñoo fi nekk samp fii seen kii ci pegu géej gi boo loolu moo am ci benn Dakar moo tax Ndakaaru Dakar la Dakar Dakar tubaab yi ñoo ko mënul wax ni Dakar Dakar Dakar waaye Dakar la woon boo xam ne mag ñi ñëw fa sampoon ci peggu géej gi di napp boo loolu moo amoon moom nag mu ne mënatul a bay waaye mu ngi ñëw fii mamar xoreji nag fu mu de xare léegi na ko wax mu walbati ko ñëw mamar xoreji nag tëddaat guddi la ko daan fi la ko sëñ sëñ bi bu mag bi daan feeñu feeñoo at ko ko mag ñi dañ daan takk dañ daan laxas léegi li ñoo xam-xam waroo sonn waroo na nga déedéet dañ daan laxas mu laxas nag topp caawa yu sëriñ tubaa loolu mu daan gis nag mu laxas topp ko topp ko topp ko topp ko topp ko bu benn béréb benn kër wax sump sump sump la kër dëkk boobu moom moom lañ def ak penc penc mooy fii ñu grand place bu ñuy yëndoo booba loolu moo amoon ci mag ñi bi ñëwee nag mag ñi xool ko ne ko yow dee sonn nga mun ne ko waaw mu ne ko koy xool mu ne ko góor mag mag ñi sëñ ca jamono xamuñu woon sëñ tubaa mag lañ xamoon wala dof bi dof bi ñu xamut ñu xamul sëñ tubaa ko daan wax góor mag ñi nga xam ne miin nañ ci moom mos nañ ci moom dara ñoo ko daan wax góor mag mu ne man de góor mag laay wër mu ne ko ndax soo ko gisee da ko xam mu ne ko déedéet su ma gisee jëmmam du ma ko xam de waaye xam naa ko ci baatin waaye xaw ma ko nag ci saayir ñu ne ko toogal noppale ko tuuti mu toog noppalee ko tuuti ñu ne ko gis nga béréb bële ñu ne mu ne ko àggal ci kër googu nee na mu dugg si ci biir kër gi nuyu sëñ tubaa sëñ tubaa su la oyoon yàlla daf ko mayoon maqaam boobu la oyoo fii dangay ngay jàpp ne kër gi yëpp ay réer fu ne laay oyoo na mu ne teg oyu ko woo ko ne euh, salaamaaleykum mu uyu ko mel ni kër yëpp ay riir mu jàllaat uyu jàllaat uyu jàllaat uyu ba agsi fi mu nekk nee na ba mu ko jubee nag mënatul dox dañ tubaa mag ñi ku ko juboon rek daanaka dootoo mën a dox ngir leeru yàlla gi nekkoon ci moom bi ñu agsee nag mu wàcc nee na di raam di raam di raam boo agsi mu ne ko tigi agsi nga xam nga koo xam ne mosoo koo gis yow mu gis la ne la agsi nga kooku moom li sëñ Abdoulaye waxoon ci moom rek nee na nekk murit du tiitarab kenn mun ne sëñ Tuubaa mooy wax ne jox ma kii jox ma kii jox ma ki fu jox ma ga yem rek nee na fa la murit yi yem waaye jox ma ga nag amul fu mu yem loolu borom daaru jox ma gi amul fu mu ko defee nag mu jokk ci moom bi mu jokkoo mag ñi dañ daan war sëñ Tuubaa bi muy dox juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer Sénégal fu mu yendu du fa fanaan fu mu fanaan du fa yendu mag ñi itam ñim xeseen jox ba noppi yar leen ci leer goo nga xam ne mooy leeru suñ borom dañ doon jóg ñoom tamit di dem di ko siyaare ji sëñ Modou Ahmadou Fadiama Niang moom la fekk mu siyaare si ko kera boobu nag moom amul jotu téye taalibe waaye ku siyaare ci seex rek daf lay jàpp ci loxo ku mu fa fekk rek mu boolee la ak moom mu jàpp Cheikh Moussa Cissé eh, ah, Mouhamad Khoreja Cissé ci loxo teg ko ci loxo ak Cheikh Ahmadou Fadiama Niang ne ko Ahmadou mu ne ko Mbàkke mu ne ko Ahmadou mu ne ko Mbàkke mu ne mbuus laa la jox mbuus gi ma la jox nag soo demee wulil ma ko mbuusu naar yooyu ñu doon taggat ba nga xam ne mën nañ koo wekku léegi te ñu di ko def ay saak léegi euh, liggéey xam-xam ak bu ñu def ko ci ay machine léegi di ko liggéey machine loxo lañ ko daan taggatee ba mu nooy nepp sëñ Tuubaa nag loolu la loolu la ko misaale woon ne ko Mamar Xure Jami mbuus laa la jox demal wulil ma ko ba mu mokk li ci mat a def nag maa ko ciy def téye na ko ñetti at bi ñetti at yi matee na mu walbatiku jël ko ne ko Mbàkke mbuus nga ma joxoon defal na mu muuli naa ko ba mokk li ci mat a def yaa ko ciy def jébbal ko ko lii moo boole diggante yàlla yàlla yi ak waa ñangeen lii moo ñu dugal ci sëñ Tuubaa moo tax buñ ne duñ murit man leen deet xanaa da ngeen xamut mamar euh, ku mënta génnee mamar xoreja siisi ak Cheikh Amadou Fadia ma ku leen mënta taqale rek su boobaa mënoo taqale ñii baatu yàlla yàlla yi mën naa mën a ko xel koom bii la dalee kon kon alxaaji ma xoreja moom moom suñ Tuubaa ci ci ci ci ci ci gént la ko gisee. ci gént la ko gisee. léegi no mu fekk ju ko. jébbalu ci moom. ba muy jébbalu ci la fa fekk sëñ Ahmadou. ma ñëw. mu boole koog moom mu boole koog moom. ndax boobu amul woon jotu. day benn taalibe booba noonu lay def. kooku mooy mooy mooy mooy bàyyi. Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Daar. mbokk yi mu ngi noonu yaakaar naa ni Cheikh Souleymane leeral gi mu leeral euh, am na solo lool ci. ni nga xam ni noonu la leeralee ah Cheikh Moussa ak way juróom yi ah, tabaarakallahu ak tamit fi ñu dëkk ak la xew ca buur ak tabaarakallahu bi nga xamee ni ah, jël na ko ah, ba ni Cheikh Makhura ji mi nga xam ni mooy way juru Cheikh Moussa Cissé ñëwee ci sëñ Tuubaa jébbalu ci moom ba ni mu ko booleeg sëñ Ahmadou Fadiama mm-hmm. Cheikh Moussa Cissé gannaaw. bàyyam boobee ndax bi mu ko booleeg Ahmadou Fadiama ndax suñ Tuubaa da koo seexal ah, ci ginnaaw bi ndax Cheikh Moussa Cissé ah, gisee na fekk Serigne Touba ah, diggante boobee loo ci leeral. alhamdulilah gise naa ak moom ñaari yoon yoo xam ne moo ñu ko nettali ci lamiñu boppam kàddoom suñu nopp maa ngi toog. moom Cheikh Moussa. moom Cheikh Moussa moo ñu ko nettali moom Cheikh Moussa njàmme borom daaru moo ñu ko nettali ci lamañu boppam maa ngi toog ay yoon yoon nee na gis na Serigne Touba ñaari yoon ci kaw suuf ñaari yoon gisanti na ak Serigne Touba ci kaw suuf ñaari yoon waajuram gannaaw bi mu laxasoo ci Serigne Touba Serigne Touba yeewi ko la ko woon daaru gii daaru ko moom la xoree jëb moo tax suñ ne yàlla yaay duñ murit ma ne ah ndaw ñee koy wax ay ngi ñi duñ ko wax mu joxoñ ko baaroom ne ko jublul xarfu gi soo jubloo sëñ tubaay wax de jublul xarfu gi soo jubloo xarfu gi mamar xoreja Cissé mi jur mu saa Cissé laa lay wax loolu la ko sëñ tubaa li waral daaru kër mamar xoreja daaru googu sëñ tubaa ko sëñcal boppam digal la nga dem wala mu dem reddal la ko kii nag daf ko ne soo demee Saalum jublul ci penku ma boobu àll rek a fi ne dara noo fi lu dul àll lu dul sookoon mbudaay sookoon jafe-jafe booba yooyu rek a fi nekk ci àll mu topp àll bi nekk ci biir àll mu ne dama lay jox tegtal nag soo demee da nga jot garab boo xam ne garabu soto lay doon garabu soto bi nag benn bàpp dina ko feetoo ci penku bi bàpp bi nag dana am mbépp bu leen feetoo ca xarfu ga ci loxo eh, càmmooy bi soo jógee penku ñoom dañu wër dañu wër dañu wër soto bi loolu la ko loolu la ko Sëñ Tuubaa fa mu toog de ca njaareem mu jóge koo fa mu ne ko foofu nag teg tegtal ba mooy banqaasu soto ba bi jublu penku dina am benn sot kii bu weex tal onk bu weex tal bu fa génnee danga ko fa fekk soo ko gisee nag fexeel bo rey ko te génn ba du dëgg bu génn ga dëggu dëkk googu fu Tuubaa génnoo ko mu topp ko topp ko topp ko topp ko bu yàlla ate mu agsi rek bi mu agsee rek rek la gis onk bi ci banqaas bu woow bi mu jublu penku jàkkaloog bàpp bi mu gis mbeb bi it fi mu taxawee mbéb bi sax yàggu da daanu mu naxanteeg moom naxanteeg moom naxanteeg moom yàlla mi dara texut la sëriñ Tuubaa la ko sëriñ Tuubaa waxoon mu def ko mu ne ko defee rek nag su boobaa xamal leen ak boobu fu du dootoo ko gën mu tax Mamar Xoroje Si daf daan wax su tàngoon mu ne dëkk bi fu du Tuubaa génnoo ko mu walbati ko nag rey ko dal di fakk dëkk ci béréb booba di béréb booba tey mooy daaru kër Mamar moom nag li doxalee Cheikh Moussa Cissé ak Serigne tubaa ndax moom dafa juddu rek seen waajur am lu ñu leen wax mag ñi dafa am lu ñu daan wax am lu ñu leen wax moom mu dégg ko rek ci ut barke ci mbaax moom mu dégg ko rek ci doomam yëpp ku bari yoon doom la moom Mor Khoroja Cissé waaye Cheikh Moussa Cissé li ko ci yàlla may moom rek la ko may mu jóg nee na takk ndigam keroog la ko waajuram wax loo rek mu takk ndigam nam doon liggéeyal Cheikh Amadou Fadia Mañang ci Sëñ Tuubaa mu di ko ko liggéeyal di ko liggéeyal di ko liggéey ba mu wàccee ko gërëm ko wàccee Cheikh Moussa gërëm ko amoon nag jamono goo xam ne Sëriñ Tuubaa bi mu ñib see géej dafa bàyyi woon sukaru tubaab bi fu ñu ko waxati sukaru tubaab bi rek mu moom du lekk sukaru tubaab bi mag ñi nag bi ñu ko déggee dañuy nemmi ay boobo boobu mooy bant boo xam ne da ngay et ci biir ba ba mu xóot nga raxas ko mel ni ni ñuy tëggee ni ñuy defaree ndënd bu gudd nga def ci laaj ko lañ def ci eh, kiiwu nag teg ko ci àll bi woon àll bi dafa bari woon lem bi mu ko defee rek lem yi dañ ciy dugg balaa balaay kiy jeexe rek balaay am juróom benn weer rek day fees del ak lem bu tooy xëpp xëpp xëpp xëpp moo tax lem yi ñuy jaay nii ak lem yi ak lem yi bokkuñ lem yi dañ ciy jaxase lu bari yooyu nag lañ doon nemmil Sëñ Tuubaa di ko def ay boobo boobo mooy euh, ki li ñu li lem yi di dugg léegi nag ñu dugal ko nag ci ay ay gutt ay gutt guttu lekkat yi ngeen di léegi des amatu sax léegi ci àll bi lañ ko daan jiw xolli ko na ba mu set ca biir ba sotti ca lem ba mu fees nee na bi ko waajuram nag benn taalibeem bu nekk ñoom baata moo ko ko indi ba mu dugalee nii loxo ci lem ba rek ne ah lem bi de lem bu tooy la lem bu tooy mooy lem boo xam ne raxul dara mu mos ci nii ne lem gi jomb na ma ci suma sang ba Serigne Touba laa ko jëmee jomb ma ci suma sang ba Serigne Touba laa ko jëmee ne ana Moussa ana Moussa ana Moussa booba ay magam yëpp a nga fa moom la ko yàlla jagleel mu yëkkati lem googu jox ko na lem googu. moog moom moog moom moog moom moog moom moog moom bu indi ko njaareem bi mu ne nekkee ci saxaar bi nag am benn mag bu ko xool bu yàgg duggee saxaar Kaolack jëm jëm jëm jëm njaareem bi muy dem nag am benn xale ne ko yow foo jëmee booba bi mu ne ko ah Mbàkke tax gi foo jëmee tax gi foo jëmee tax gi lekkat yooyu tax lañ ko daal foo jëmee tax gi mu ne ko ci góor mag laa ko jëmee mu ne ko yow de foofu ngay noor booba Serigne Touba gis ko dafa jafe mu ne ko yow de foofu ngay noor gis Serigne Touba yombut de waaye mu ne moom tontuwul mu noppi rek bi ñëwee nag dal kër njaatigeem yàlla ate ca takkusaan suba teel la agsi yendu ba takkusaan rek ñu ne sëñ bu mag ba génn na ca ca ca ca xarfu ga ca xarfu ga rek nee na mu mu yëkkati gàmbam boobu ku dégg ne génn na da ngay daw ndax ku ko gis rek sa aajo faju na daw daw daw daw daw nee na bi ma agsee yàlla atti na buntu bi ma jaare man yàlla Serigne Touba. moom moom Cheikh Moussa Cissé nee na la booba xale bu lefoog laa xale bu lefoog mooy ko am ñaar fukki at wala ñaar fukki at ak juróom-ñett. ci bi mu gis sëñ Tuubaa. waaw bi mu koy gis ci at yooyu la toll ñaar fukki at ñaar fukki at ak ñaar ñaar fukki at ak juróom-ñett xale bu lefoog mooy xale boo xam ne dafa yeewu nee na booba foofu la toll ngir ci liggéeyal waajuram ngir Serigne Touba. keneen nag bi mu ko ko yónnee nee na bi mu ñëwee nag ba jub ko moom itamit bi mu ko gisee rek nee na mën a tudd dox. mu àgg suuf di raam di puus gàmb bi di raam di puus gàmb bi di raam di puus gàmb bi nee na bu agsi ci moom bi mu agsee nag ba nuyu ko euh, mu ne ko foo foxee foo foxee ñoom loolu lañ daan waxee mu ne ko ñun de fo ana ana ana fan nga foxe ana fan fan nga bàyyi ko mu ne ko Mbàkke maa ngi bàyyi ko ba Saalum ci Mamar Xore Jasiise daaru kër moom mu ne ko xam naa ko xam naa ko xam naa ko xam naa ko mu ne ko moo indi gambu lem bi nee na sëñ Tuubaa dugal na ci loxoom nii la wax ci gamb yi ne nii am ku óolu mu ñëw mu ne ko yóbbul gamb gi yóbbu ko yóbbul yóbbu ko ca ca gamb ya nee na mu yëkkati ko yóbbu mu yëkkatiyaat beneen leetar boo paapam dafa bind leetar ne moom gërëm na mu Moussa Cissé moom walbatiku jël leetar bi nag mu jox ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa liir nii leetar bi ba pare ne ko soo demee ne ko jàpp ko téye naa ko te dootuma ko ba te dootuma ko ba ak lu koy lor sëñ Tuubaa loolu la ko wax téye naa ko te dootuma ko ba te dootuma ko bàyyi lu koy lor. booba Cheikh Moussa lay waxee wala. booba Momar Khoreja moo yónni Cheikh Moussa Cissé. bind leetar nag ni suma doom bi dama koo gërëm. Hmm. mu waxal ko lii. moo tax Cheikh Moussa képp ku ko bëgg a génnee ci tuubaa da ko wax loo xam ne di yoon sëñ Touba ngay janoo de lii la ko sëñ Touba wax carrément bi loola amee nag. bi loolu amee nag wax boobu nag bi mu amee nag mu ne ko euh, tibal ci suuf si def ci sa poos moom lépp ci suuf si la ko daan defee tibal ci suuf si def ci sa yére mu def nii tibb moom nee na nee na moo tibb sotti tibb ñaari yoon sotti sëñ tubaa xeeb lim tibb ne ko yangal sa mbubb mu def nii sëñ tubaa tibb ñetti yoon sotti ko ñetti yoon dugal loxoom ci suuf sa ne ko demal nee na nag mu ñëw ci ci daar ci Cheikh Moussa Cissé ci daaru Kër Mor Khoreja bi mu ko jébbalee lépp ba mu pare mu ne ko sëñ bi de nee na gërëm na la sëñ bi nee na téye na la téye na la téye na la téye na la téye na la téye na la téye na la wax ko kaddu yu rafet yooyu Cheikh Cheikhul Khadim wax beneen yoon ba ñaareelu yoon benn yoon baa ngoog ñaareelu yoon ba nag nga xam ne ci la sëñ Tuubaa def ci moom lépp bésu kera nee na euh, li ñuy waree fas yi booba jamono yi dañuy mag ñi dañ koy liggéey ba mu rafet ñu yóbbu ko sëñ tubaa ndax sëñ tubaa jur waxuma ni muy defaree nit de waaye jur daf koo fonkoon a fonk ba fi mu nekk dara du ko taq noon la meloon ci jur fasam boobu nag daf ko rafetaloon rafetaloon mag ñi nag de gis ni mu bëggee woon jur ñuy liggéey nag wareekaayu fas da ko ko yotti nee na ba ma ñëwee ba yot ko ko kera man ak sëriñ tuubaa la su fekkee am na ku ñu ñetteel yàlla la nee na gis naa ko ñaari yoon yoo xam ne maa moom ñoo gise nee na beneen yoon ba nag bi ñuy ñëwee nag yot ko gam kii yot ko ko ba noppi am na koo xam ne fekk na ko fa ne ko mbàkke romb naa waliw yëpp gambi laa jóge suma kër amuñ amuñ amuñ luñ lekk nee moo tax mu ne ndeyjoor ga du laal xaalis waaye càmmooy ba daay laal xaalis nee na ci la dem ci ci ci ci fañ néeg bañ def alalu nguur xaalisu nguur ndigi su agsee day weq benn rek tip sottil ko weq benn tib sottil ko boo bu xane bi daw gàttandi ko ne ko mbàkke doy na de mbàkke doy na de mu ne mu ne leen ku ma laaj yàlla nii rek laa mën a def ku ma laaj yàlla lii rek laa mën a def nee na allahu akbar nee na nii la def sottil ko sottil ko sottil ko bu ñetti yow nee na moom loolu moom mu Moussa Cissé mooy wax sëñ tubaa jox na ci ñetti fan ci koor kër la ko sëñ tubaa dimbali nag moo àgg ci yàlla oo ñëpp nag ne leen jàpp naa ci mbincum sëñ Tuubaa bu àgg ci yàlla tey ci mun ci àgg liy jaam képp ku soxla yàlla ma yóbbu la ci yàlla waxut jullee koor de mu ne loolu dama leen ci fekkoon waxuma aj Màkka de dama leen ci fekkoon waxuma jàng alxuraan dama leen ci fekkoon yóbbu nit ci yàlla moo àgg ci yàlla jàpp naa ci mbincum sëñ Tuubaa tey bu àgg ci yàlla mun ci àgg jaam ku ñëw dinaa la yóbbu ci yàlla lii mooy ooteel ah mi ngi noonu ah, mbokk yi nga xam ni ah, téléspectateurs yi yéen ñuy seetaan Cheikh Souleymane ñaan a ngi noonu ah bokk ci euh, ñi àndoon ak Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Daaru dégg ngeen leeral gi Cheikh Moussa ni ma gisee ak Sëñ Touba te it euh, la ca xew yëpp yaakaar naa ni dégg ngeen ko waaye li ci gën a am solo mooy euh, Cheikh Moussa ci boppam jàmm bi nga xam ni da koy àggale ci boromam. àggale googu nga xam ni Cheikh Moussa da koy àggale ci boromam gis nañu Cheikh Souleymane njaboot gi nga xam ni ñoo bootu ci yàlla yàlla yi. gis nañu daal fu ñu toll ñu ngi ñu ngi ñu ngi yor course daal di di di ñoddi rek loo loolee maanaam gis nañu ndaw ñi ndaw ñi ko ci gis mu ngi waxtaan yàlla ko ci gis mu nga naan euh, lii euh, maa ngi ci gis yàlla gis yàlla googee baatu yàlla yàlla ci boppam ndax ndax ndax Cheikh Moussa moo ko fi bàyyi woon wala wala ci ginnaawam la baatu yàlla yàlla fe alhamdulilah déedéet ci kanamam ci kanamam ci kanamam man mii de wax ak yow baat boobu bi muy sosoo maa ngi toog baatu yàlla yàlla baatu yàlla yàlla bi muy sosu man maa ngi toog ci jeetaay boobu euh, sëñ Salim Mbàkke atam ngoram xel koom bu njëkk ma daf ko yónnee woon oto yu bari booba booba sëñ Moustapha Basirou moo nekk xalifa comme nii Euh, kii def sëñ booba ni sëñ sëñ Basiru mu sëñ Abdou Khadir def mhm. booba sëñ Munta ke sëñ kii moo ko defoon sëñ Moustapha Bachir sëñ Moustapha moo ko def moo yoroon booba kaddug sëñ Abdoulaye moo yoroon kaddug mhm. sëñ Abdoulaye kaddug sëñ Touba gi daal mhm. ku toogal sëñ Touba moo yor sa kaddu léegi nag moom lañ dénkoon comme sëñ Basiru lañ dénkoon Saalum bi loola amee moom itamit ñu yëgoo ak Cheikh Moussa Cissé sëñ Salim Mbacke nag dafa xam Cheikh Moussa Cissé bi muy toogaat taarix ba naa leen ko wax sëñ Saliou Mbacké mii dafa mos a jóg nii ma jógee Saalum ñëw fii booba kër gi booba amaguma ko ni ma doon ñëw ci taalibe yi dafi wàcc sëñ Saliou Mbacké daf koo def ne dafay seeti taalibe sëriñ Touba yi Saalum bi mu ñëwee ba kër ma jébel dëkk Alaaji Moustapha Niass mii ne damaa buggoon daal cheikh bu xam Saalum tegtal ma Saalum ñu ne ko kenn rek moo ko mën Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Daaru moo ko mën ñu jëlee ko fa indi ko daaru kër Momar Xoreja bi mu ñëwee daaru kër ma Momar Xoreja nii ma def nii toog ci photo yii def na ko ci lalu Cheikh Moussa ba ñeen fukki fan 40 jours def na ko ci lalu Cheikh Moussa si. moom moom sëñ Salim. sëñ Salim Mbacke men. ci ci biir kër Cheikh Moussa jours ci néegam moo toog ci kaw lalam léegi su xëyee. mu yóbbu ko ci taalibe bu jant bi sooy mu dellu si at fanaan bu xëyee mu yóbbu ko ci taalibe bu jant bi sooy mu ñëw dellu si at bu jant bi sooy mu yóbbu ko bu bu kii ñëwee mu mu dellu si at kooka dafa xam Cheikh Moussa Cissé xamin bu leer nañ moo tax daf daan wax ne ku ne de bi nga toogee ci jal bi laa la door a miin ci doomu sëñ Tuubaa yi waaye sëñ Saliou Mbacke moom ñeen fukki fan def na ko ci suma lal ñeen fukki bëccëg ak ñeen fukki guddi def na ko ci suma lal ba muy weer ak fukki fan def na ko ci lalam moo tax ñii de wax affaire yàlla yooyu dañu xamul li xew rek léegi nag yàlla yàlla ñu continuer ca la ko waral sëñ Saliou Mbacké nag oote yónnee ñu ay camion parce que man 81 laa ko uyu ji léegi waaw Cheikh Moussa Sy man 81 laa jógee dëkk mbudaay boobu dëkk cosaanu mbudaay séeréer boobu mbudaay séeréer ma dem fekki ko en 81 moom Cheikh biñ ko yónnee camion yooyu boobu daf ñu mandil ñu mandi ci leeru yàlla ku man di leeru yàlla moom rek ngaa yéeg parce que nit su xasee àgg ci boromam loolu rek laa yéeg yéegatul dara léegi nag mu ne maa ngi leen di digal ooteeg sëñ Saliou Mbacke bii képp koo xam ne demoo lu dul damaa feebar seytaane la jàpp déclaré ko saalim yëpp ñu def ay oto ay oto ay oto ay oto dem atam suñ sas moo njëkk a jeex ci tool ba atam suñ sas moo njëkk a jeex ci tool ba bi mu jeexee sëñ Modou Moustapha joxaat ñu beneen liggéey joxaat ñu beneen liggéey joxaat ñu boo tax bañ ñëwee fekk ko mbar daf ne euh, Cheikh Moussa mii de nit ñi dañ koo reere woon waaye jëlee na ci sëñ Tuubaa loo xam ne néew na ko ko jëlee ci moom kele loolu la seede moom sax sëñ Moustapha Basir fi ñu fekk ko fekkee mbar lii la seede ci mbar boo sëñ Moussa naawe la ngi ci ronam lii la seede ci mbar ñu walbatiku nag léegi ñun suñ paree liggéey au lieu ñu nekk fa di wax diw nii la mel diw nan la mel ñun amuñ loolu ñun ku ñëw da ngay toog ni yor sa kurus kii toog yor kurusam kii toog yor kurusam ñuy addis comme nii may wax sëñ Tuubaa wax na yonent bi wax na jullit bu nekk li war ci yow mooy nga xam sa borom nan nga mën a moytoo lu bon nan nga mën a toppee lu baax ñun lii mooy suñu addis te loolu ku xamut yàlla mënoo ko loolu nag moom la ñuy def soo ko defee nag biñ demee nag ba nga xam ne am na ñuy ñëw te xamuñ fuñ nekk bu ñu gisee ku yor kurus ne de laajte ñu ne ah yéen xam na ñu ñuy wax ñuy wax yàlla yàlla moom ngeen di laaj ñu nga fële dañ ma joon dal yi ku wàcc te mar yàlla rek sa yàlla ne ci sa xol da ñëw ci suñu dal moo tax lañ ma joon dañuy wër ci waxtaan noonu loolu moo indi ku demati nag léegi ne gis nañu nag yàlla yàlla yi yàlla yàlla yi baat bi li muy tekki mooy ñiy wax yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla fu ñu mën a toll da sëñ Tuubaa bu muy wax ci xol bu kaw loolu la waxoon daf ne su ngeen bëggee gis nit yàlla yi na ngeen gis koo xam ne ñoom du ngeen fekk muy wax indi wala lum naan wala béréb sàngam ñoom daal ci xol bu kaw dañuy dudd aju dund gi aju sax yi ñoom loolu rek moo nekk seen waxtaan mu ne booy ut nit yàlla yi na nga ut kooku boo demee na boo xam ne kii la mu ne jàppal na xam ne kii la man ngaa sax ñàkk xam turam waaye yàlla la lay wax yonent bi la lay wax suñ tubaab fi mu daan yore nit bu yóbbu leen ci yàlla ñun loolu mooy suñ jeetaay parce que nit soo xasee àgg ci yàlla waratoo wax leneen lu dul loola def lu baax wax lu baax jëfe lu baax. kon kon kon battu yàlla mu ngi mu ngi jógee xel ko. mu ngi jógee xel ko. nga xam ni saa su ngeen liggéey ba noppi. dañuy toog di waxtaan da ngeen di toog di waxtaani yàlla. ni ni jàmm bi war a mel. ci ci diggam ak boroomam. ni mu war a setee eh, loolu ndax ndax yéen yéen yéen ci seen bopp ndax jàmm bi nga xam ni dafa taq ba ba ba takk ba takk daal. ci xeeti bàkkaar yi yéen yéen bu ñëwee moom da ko raxas ba mu set wicc mare la ko borom. boo gisee ñuy def annoncement fu nekk ci tele yi fu nekk ci rajo yi di génn ci mbedd mi di waxtaan di waxtaan ci kër yi fu nekk ñuy waxtaan gis nga tey boo amoon doom. Mhm. yàlla war sakal la dara nga defal ko néeg defal ko ay télé gi ci biir néeg bi mu ñëw ci man su ñëwee day du muyu sa tele yi. bu leeree lésion am ba pare rek ñu ci kurusam loolu nag dafa jaaxal kilifa yi bëri xam nga li nga xam def nga ko li nga am def nga ko mooy foog nga ne bégal nga ko jox ko ay télé ak nekk nga tegal ko ci kanamam bu xesee ñëw fii ma jox ko kurus sa tey léegi moom foofu la xuur hmm? waaw dootu ko jublu lée su jàngee école am daal dina jàng leçon ba mat sëkk kurusam waxtaan yàlla ak moromam yi la nga daan gis sax muy dem di waxtaan yi nga xam ne su demee leen laay def daf koy bàyyi su boobaa nag bu yàggee ñu ne yow sa doom bi yàq na suñ doom yi ba mu yàq sa ba mu ba sa doom yi da yàq seen doom yi booba kenn waxut mag ñi day noppi waaye mu fexe ba sa doom yi te ñëw xëcc ki ne ko eh kay nga dem nga xam yàlla sëriñ baa ngi ne xamal na ma yàlla kii ñëw xam kii ñëw xam kii ñëw gis nga leen kenn bokkul ak sa morom foo te ku nekk nag yaa ngeen yor sa métier léegi nag kii ñëw xam kii ñëw xam kii ñëw xam ñu bàyyi fa bàyyi caaxaan jàpp seen course di wax laa ilaha illallah de yàlla suñ àggee nag ba nga xam ne nag àggali nañ leen buñ jàkkaloog yàlla nag continuer liggéey ba am xam ne nag war nañu am garage suñ leen seexalee nag léegi nag ni ñi dañuy ñëw léegi kii fi ñu toll nii mu yar nañu bari te moom dong la woon sol tubayam dama fooy dong la fi ne woon booba ak booba dajewu dag man ñoom ñëpp waaye biñ xesee nag am lii léegi nag amatul lool léegi ñoom ñëpp kilifa nga goo xam ne da yar mbooloo ñoom ñëpp ku am nga loo def ci dañ lay àggali ci yàlla nga parce que euh, Sëñ Tuubaa ñetti buum la am xam ci dara doon ci dara man ci dara xam ci dara xam ci dara waaw xam ci dara mhm. dañ lay àggali ci yàlla nga àgg ci yàlla man ci dara nag dangay am ndigal mën koo jox nit waaye doo ko mën a àggali man ci doon ci dara nag mooy nga am ndigal mën koo jox nit mën koo àggali ci yàlla sëriñ su la yëggalewut ci yàlla xamalu la yàlla sëriñ boobu lu ngeen àndee xarit gu baax nga am rek ngeen am sëñ Tuubaa fekkoon jàng ak julleeg xoor ak génn ba bi ak aj màkk kon du oote waajuram la fekk mu nekk ci xaali xaali mooy ku jàng fekkoon da ngay wax français mooy koo xam ne jàng na droit islamique yëpp mu nekk procureur général loolu la fekk waajuram nekk te booba soo wàccee alquran sa néegu ndey sa néegu baay eh, sa sa gëño baay dañuy daje réew mi yëpp daje ñu rey ay nag ñu ne doomu di wàcce na alquran loolu la fi fekkoon su fekkoon lool la sëñ tubaa du oote ku mel ni ma jaw pax lu lax mu ñëw sëñ tubaa lu ñuy jàng-jàng na ko ba pare xam-xam bi yóbbu nit yàlla kenn du ko jàng ci kayit hmm? billaahi wallaahi taala newul ci kayit déedéet boo ko doon sot ci kayit newul ci doo ko gis mukk may ma ma wax la appareil bi soo kayit nii kayit boo xam ne bagage yëpp yu nga ci jàng nga ko ba pare photo baa nga ca waaye ndax danga nga photo appareil télévision bi du affiché nañ télévision ci kaw paquet bi ma ne carton bi télévision lañ def ci kaw catalogue bi télévision lañ def ci kaw soo ko tegoon fale da nga seetaan dara kayit noonu la mel li lim la bëgg a wax na la ko soo jàngee sujjoot ci téere soo toogee est-ce que nga soo jàngee aj màkka ci téere est-ce que soo toogee aj nga loolu théorie bi la dangay ngay jot di fi pratique bi pratique lañ tuddee takkalum lu ñu jàng ci këyit taaruf mooy loo xam ne dañ la koy xamal nga xam ko directement dañ maa def nii nga def dañ maa def nii nga def ma dolli li ci loolu ñu ne ma sëriñ bi dañ lay laaj ñun nag ba lañ lay wax dañ lay wax li ñu xam ñun dañu dégg ne da ngeen am beneen xam yàlla bu bokk ak li bi ñu xam ñun ñun bi ñu xam nag mooy gëm yàlla jàng julli woor génn asaka aj makka li mu bokk yëpp biñ may jox parole ñu ne ma léegi nag dañ laay laaj nga wax ñu te bu ñu tontu nag ci sëñ Tuubaa bu ñu tontu ci ci ci ci waxu mag ñi daal dañ bëggoon nga tontu ci alxuraan bi nga xam ne ñëpp a ko bokk suñ ko xamee baax na suñ ko xamut yi ñu xam ne yàlla wax na ko rek ma ne leen li ngeen wax xam yàlla du xam yàlla jàppal li ma la wax bu baax de. ma ne ko li ngeen wax xam yàlla du xam yàlla. wan leen ma benn aaya ci ci alquran bu indi ne julli mooy xam yàlla digle yàlla rek laay wax. wan leen benn aaya ci alquran bu indi ne aj màkka mooy xam yàlla digle yàlla rek laay wax. waaw te soo xamut mënoo jaam wax leen ma luy xam yàlla ñu ne ma léegi kay yow xam yàlla lañ laay laaj bu bokk ak lii ñun kay wax nañ la li ñu xam jànkat lu jàngam bëri bëri lii la xam loolu bokk na xam yàlla mooy xam jëmmi yàlla loolu bi ñu ñëwee ci àdduna lañ ko xam yàlla ñu ngi ko amee alaaka euh, euh, alamul arwaax booba ñëwagul ci àdduna ñu ne ma luy sa lay ma ne leen yàlla jàngu leen alastu bi rabbikum qaaloo balle keroog nga xam yàlla keroog laa xam yàlla nit nit nit waxuma jëmm nit nit moo xam yàlla avant dara booba binduñu asamaan binduñu suuf binduñu jant binduñu weer keroog la xam yàlla alquran la mu ngi nii alastu bi rabbikum qaaloo balle ndax ne ko ma seen borom ankay ñun ñu ne ankay yàlla suñ borom tey nag lu tax ñu ñëw ñu ne xam yàlla mooy julli mooy woor mooy jëmm te dégg nga tafsirul Quran bil Quran yàlla daf ñu firil aaya aaya gis nga aaya bi xam nga li ci borom bi wax biñ ñëwee ci àdduna mu xam ne xamoon nañ ko yàlla ne ñu leen waaw sëñ noo koy defee ba ma wax xamoo ko woon booba juddoo ko fàttaliku yàlla laa wax aaya aaya koy firi yow ma alastu lañ xamoon yàlla ñu ñëw ci àdduna yàlla ne fàttaliku léegi kay xam wala ñàkk xam rek ñun ñoo wax dëgg yàlla wax nga dëgg wirdu bi nag comme li nga wax wirdu bi ma ne loolu ku ko deful amul Ibaadu Rahmaan amul Tijaan amul Xaadir amul Laayeen amul Jullit ak xan laa te wirdu boo amul ku war xam ñu ne lu tax ma ne yàlla ko wax walillaahi lasmaul husna fadduhu biha yàlla mu ne oo leen ma ci ma tur yi rabbi ku ci mucc xam naa ko wala xaw ma ko moo am xam naa ko wala xaw ma ko rek am. mbokk yi mu ngi noonu yaakaar naa ni Cheikh. Souleymane ñaan euh, la ñu dalal euh, tey jii ci émission bu mag bi nga xam ni mooy kéemtaanu mag ni yaakaar naan tey jii kéemtaan feeñ dëgg ci biir kéemtaanu mag ñi ndax tey jii dégg nañu kéemtaan ndax leeral na leeral goo xam ni leeral gu am solo la ci euh, ndax ndax ndax ndax yàlla yàlla yee dafa am ñu bari ñu mu jaaxal ñoo xam ni ñu ci wax tey wax yi bari ci lool tey it yaakaar naa ñii nga xam ne ñoo yore ci keppaaru Cheikh Moussa Cissé euh, danañ ci wax loo xam ni ku ko seetaan euh, bu bu fekkee ni am nga barsatul xal bi euh, yëg-yëg boo xam ni dëgg-dëgg sa borom di nga am loo ci mën a jariñ Cheikh Souleymane yaakaar naa ni yaa ngi ci point boo xam ni point boo am solo la waaye waaye nit ki ñëw nit ki ñëw ci yéen bëgg bëgg àgg ci boromam ndax ñii nga xam ni taalibe yore nañ ko course ndax ndax loolu nga nga leen di jox muy ay dog wala wala baat boo xam ni baat ndax ma ma na ko man mi tey ji bu ñëwoon rek ni la ni la ni la baax ma ci ndax damay bokk ci sa mbooloo nga jox ma ko wala wala wala même même su ma jébbalu sax da nga ma jox euh, loolee. lislaam amul xaajale te lislaam mooy aslam taslam islaam mooy jébbalu ci yàlla. islaam jébbalu ci yàlla ku xamul yàlla mënoo ko déggoo li ma la wax. loolu amul tijaan ak murit ak xaadir cheikhul xadim cheikhul bamba yàlla ñu ko yàlla fayal ak i ñoñam dañ ko laajoon lu mel nii ndax àgg ci yàlla nit mën na koo am wulis mu jaar ci kenn wala mu ñëw nii rek am ko sëñ Tuubaa ne leen déedéet man mii de ameewuma ko noonu ñu ne ko loo ko amee mu ne dalla ni allahu ala muhammadin wa qaadali muhammadin li samadi <laughs> man de wax dëgg yàlla tooguma nii rek am ko yàlla moo ma tegtal yontu yàlla muhammad yonentu boobu moo ma womat nag jébbal ma yàlla waaw léegi sëñ Tuubaa ak Muhammad est-ce que daje nañ jamono. déedéet waaye yonent bi la wax yonent bi mooy huddallah mooy njubab yàlla bi kooku du fi jóg mukk fekk jamono ngi nekk jamono loolu la ko ak xamut xamu ko njub gi du Muhammad ibnu Abdallah dafa jaar ci Muhammad ibnu Abdallah daana daan wax ni man de waxtu woo xam ne nubuwa gi wàccut ci man maa ngi yéen benn lay su boobaa maa yéen ñoo toll li ma leen tànn rek mooy nubuwa gi wàcc ci man loolu mooy huddalaa njubab yàlla googu jàppal moo wàccoon ci Isa jàppal moo wàccoon ci Daawuda jàppal moo wàccoon ci Ibrahima jàppal moo wàcc bépp yonent bu ñëw ci kaw suuf yàlla ne lool laa leen yónnee waaye lim leen yónni lan la mu wax ci sortul anbiyaay mu ne mosta yónni bépp yu benn yonent ci yonent yi ñu ne ko xanaa julli la xanaa xoor la yàlla ne déedéet ñoom lépp li ma leen yónni woon mooy laa ilaha illa allahu ñoom laa leen loolu laa leen yónni woon door gis nga nit su amul tawhid bu jullee yàlla du nangu bu xooree yàlla du nangu bu aji màkka yàlla du nangu waxuma ko nag lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimmaa tayyibuna yàlla mu ne duma leen nangul lu baax ndare ngeen jox ma li ngeen gën a bëgg ci seen bopp xam nga ñun alal bi lañ ko foog mhm. nit soo feebaree da ngay ñàkk alal ngir sa bopp kon waxal ne alal bi kon sa bopp sa bopp ko gën nit dina jaay kër ngir boppam kon sa bopp ko gën nit dina jaay nag ngir boppam kon sa bopp ko gën nit dina jaay dugub ngir boppam kon sa bopp ko gën li la yàlla laaj lan la sa bopp bi la yàlla laaj lan la loolu la nit ñi umpale te ñu xamoon ko ci lastu bi rabbikum xaalu bale loolu kenn manqué wu ci te déglu ma nag ku ko yóbbaale wu doo jàll xam nga li tax soo duggee ci bàmmeel xam nga dañ ne ni su dee julli lañ koy njëkkalaay déedéet nit soo duggee ci bàmmeel ñaari malaaka dinañ ñëw ci yow yàlla la waxoon alastu bi rabbikum te yàlla ngay fekki ndax nekkuma sa nga ne ko ankay mu wàccee la ci àdduna ne la fàttaliku ma dina yónni ñaari malaaka xool ndax loolu def nga ko seetal ñetti état bii de alastu bi rabbikum ndax nekkuma seen ñu ne ankay mu wàccee ñu ci àdduna ñu juddu mu ne leen fàttaliku leen ma balaay allahu akbar jaam bi xam borom ba moo waroon a jiitu parce que loolu mooy tawhidu ilahiya yonent bi ne na jëf ju amul tawhid mu ngi mel ni jëmm ju amul day daanu te yàlla wax na la lu ëpp ci nit ñi xamuñ déglu le yàlla mu ne lu ëpp ci nit ñi xamuñ gis nga ku baax bari nañu dee àgguñ ci aaya bi laa lay tontoo nag moo tax bari nañu dee demuñ de yàlla moo ne lu ëpp ci nit ñi xamuñ gisuñ xeluwuñ dañu tax dañu gumba te mu ne su man bokk man hum yoon fa hum laa yar joon ku tax gumbalu doo dellu si at su nekkoon hadis nag mën nañ ko werante yàlla wax su fekkoon hadis nag mën ko werante nag yàlla moo ne ku amul lii doo dellu siyaat ci man parce que dañ ko amoon ba pare alastu bi rabbikum xaalu bale xam-xam moo jiitu ci nit xam borom moo jiitu ci nit ndax ne ma sa borom ankay nga ñëw ci àdduna mu ne la fàttaliku ma de nga dugaat ci biir bàmmeel ku dee la laaj santaane boppam la lay njëkk laaj ba pare door la laaj santaane yi moo tax soo duggee ci biir bàmmeel dañ lay wax man rabbuka ku doon sa borom fàttaliku ma moo tax nga ñëw ci àdduna gis nga ku tukki ku nekk dafa am lu tax nga tukki de ñun suñ tukki gii amul dara lu tax xam borom bi su amee nag boo jullee mu baax nga xoor mu baax nga dem asko mu baax nga aj makka mu baax nga tëdd dina lew mu baax dama ko wax ci benn conférence benn étudiant bi ma déet tëdd dina lew wax ci la bokk ma ne ko déet yonent moo wax ne nelaw borom xam-xam moo gën ku fanaanoo julli ba bët set léegi kay lii mbir mi mooy ba lan la lan la lan la lan la loolay mbir mi nu nit di jaar bu am ko loolu la nit war a jaar jaar billaahi wallaahi tallaahi ku tardel xam yàlla doo jàll léegi léegi léegi Cheikh Souleymane waaw nit bëgg a xam yàlla fu muy jaar. waaw kay loolu yàlla dafa may nit yàlla yi. biñ tubaab ndeysaan dégg naa dafa mos a tàng huit wax leen ne mu ne marché bi su fekkoon ne benn yoon la mu ne añ yi dañuy naaje lool. mu ne su fekkoon ne benn yoon la mu ne añ yi dañuy naaje lool. ñu ne ko lu sax mbàkke. moo xam yàlla soo ñëwee ci njun li ngay njëkk def ak li nit ñi di def uute lool. ñëw ci nit ne ko jébbal naa la suma bopp adduna ak àllaaxira subhaanallah hmm? laa ilaha illa allah jébbal naa la suma bopp adduna ak àllaaxira ah. warul kenn waru ko def déedéet ah war a waaye wax googu waruñ koo waxe noonu da ngay ñëw ci moom ne ko maa ngi jébbalu ci yàlla ànd ak yow pour nga xamal ma yàlla ku ñëw ci bitik li nga soxla ngay wax door a teg sa alal su nee ci biti bi nga joxe waaye it sëriñ si defuñ dara jox naa suma bu àdduna ak àllaaxira nga wax ni. léegi léegi ñi ngi jox seen bopp àdduna ak àllaaxira léegi te nangu noom noom lan mooy kii bi. ñaari mbir moo am. Mm-hmm. dafa am koo xam dafa uyoo lu mu doonut am koo xam dafa topp lu mu xamut lii nag mooy coow li uyoo loo doonut topp loo xamut. kii dafa ñëw moom aada ko dugal ci ci mbir mi aada aada moo ci dugal utut yàlla utut yonent bi bi ñëwee daal man de su waajur daal ci kii lañ nekkoon suñ la déggee ci yàlla yàlla yow foo jëm ku sant diw nga bàyyi ko di dem ci diw sa prof mat bi lu ci jar sant na nekk mati rek yow fexeel am tawhid pencum yàlla nga mucc fexeel am tawhid pencum yàlla ma nga mucc gis nga tawhid ku ko yóbbaale wut bés pénc da nga sonn de te ñun tout lu tuuti la ñu borom bi jox jox ñu ko jagleel ñu ko muy lu ndaw ci ñun te muy aduna ak taw tawhid bu xasee dugg ci yow mucc nga raw nga texe nga gis nga kenn kër gii photo yi yeeg yi xam nga ne loolu du kër de kër mooy dépasse soo amul dépasse da nga def télé soo amul dépasse da def kër soo amul dépasse da nga def ay photo yi dama lay jox misaal yàlla dafa am lu mu soxla ci ñun yowmal xiyaam aw ma soxla ci seen alal yi ak seen doom yi li mu am ci soxla xol bu set la alxal bu salim ban xol xol nag léegi li koy raxas li raxas xol waaw parce que soo buggee jàpp dégg loolu de dañu yombal bale jafel bi soo buggee jàpp rek jàpp rek da ngay am ku la ko tegtal mënoo gént ba mën ko soo buggee sang xam ni ngay ko jana ba mënoo ci dara da ngay dem uut ku ko xam mu jàngal la soit nga jàng français gis ku def traduit bi ba tey moo la ko jàngal nga liir ko door koo mën waaw lu tax lii raxas xol soo waxee ñu ne loolu kay yomb na mooy wax lu baax def lu baax déedéet <laughs> wax lu baax def lu baax xol bu ñu raxas ba pare résultat ya muy génnee mooy wax lu baax def lu baax waaw yonent bi sallallahu alayhi bi mu bëggee xolam set moom bi yàlla bëggee xolam set lu mu def fekkut ko fa muy sàmm mu ebal jibril ak mm-hmm. alburaax ñu fekk ko foofu xotti xolam ba mm-hmm. yaa gën yonent mën a ci xalaat su fekkoon xalaat ak xel yonent bi la kon su boobaa ci la de desetee mbir mi yoon la am yoon la am moo tax moo tax soo demee Sëriñ Tuubaa sax daf koy wax biñ ko bindee téeram boo xam ñu tuddee xal bu kaaw daf ci firi aaya alquran ak hadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aaya bii bi mu ne aw ma soxla seen aleeg seen doom yi xol bu set la am ci yéen soxla saaba yi dañ daje ci yonent bi ne ko ñun dañ lay laaj léeg-léeg laa bu xabas ak laa bu hadas mooy laa bu njàpp ak laa bu mën niw suñ jàppee ba pare suñ tuuree ndox dafay laaj ñu jàppaat suñ gisee man niw doonte seyuñ dafay laaj ñu sanguwaat janaba léegi nag dafa am lu ñu lay laaj xanaa yonent bi amul benn laab boo xam ne ci nit bu xasee laab rek léppam set na ñaari téere yi feeñal nañ lii may wax feeñ na ci muxtaaru hadis feeñ na ci buxaari wal muslim ñaari téere yëpp feeñal nañ wax bii may wax si yonent bi salaan salaam wax leen ne ana kay benn lumb mu ngi ci nit bu setee ci moom léppam set na su tilimee ci moom léppam tilim na bi muy daanee aaya bi mu def tafsir quran fii la hadis li aaya bi daanoo moom la daanoo mu ne loolu mooy xalbu te taharatu xalbu lañ al quran waxoon yéenante ne loolu mooy xalbu bu setee ci nit ki léppam set na su tilimee ci moom léppam tilim na Ibn Abbas bi mu koy firi daf ne xalbu de war nañ ko jàngaat ñu setantal ko yàlla daf ne àll na ngeen setantal su euh, ma wax setantal leen alquran ba mu set wécc léegi déglul ñëw nga nag léegi pour léegi Ibn Abbas mu ne li setal xol hmm. du xol biñ bokk xar ak mbaam yi nag xam naa ni euh, waxtu yi daanaka li ci des bëreetul waaw daanaka ci juróom minute la toll waaw léegi léegi léegi léegi dañ koy tëgg ci diggante sëriñ ak ak taalibeem waaye Cheikh Souleymane euh, diggante bu daay googu mu taxaw euh, te nekk fa ab liggéeyam Euh, daanaka mu résumé ko rek ñu tëg jotaay bi ndax fi neen waxtaan wi neex na neex koo xam ne a na. Ah, jërëjëf euh, mbudaay googu. Uh-huh. tey suñ toogaay foofu yëpp nettali fa histoire daanaka jaru ko profité rek dugg ci ndimbalal jaami yàlla yi foofu laaj nga ma léegi ndax kii mën na ko am kale mën ko am kale mën ko am te du jaar ni du jaar ni man xamee wu ma tijaan ak murit kon ki bokk ci beneen sëriñ bu ñëwee bëgg xam yàlla kooku loolu li mu ko amul ab yàlla lañ soxla yalla lañ ñàkk te ku demaale loolu da ngay tardé yow mi ko yor nag su fekkee da nga ko tënk ci tarixa nag yooyu tamit nag koo xam ne nag dem na ba tarixa gaw ko te mu soxla yàlla nu muy def dëgg la de da nga koy dimbale ci kalimatu laa ilaha illa suñ la wirduloo leneen nag bañal hmm? suñ la wirduloo leneen bañal de laa ilaha illa allaahu lañ lay jox nga di ko wirda doo ci beneen boole beneen déedéet doo ci boole beneen tur xanaa muhammad rasulullah ndax tur bi day am lim wala da ngeen bu la neexee dañ day am lim danañ la ci defal lim bu la neexee bu la neexee itam dañ koy def rek mu continuer parce que ñaari aay yëpp ñëw nañ i <laughs> eh, yàlla wax na ci alxuraan laaj nañ ma loolu ndax war na yonent bi defoon na ay lim ma ne leen def na lim da ngeen déggul rek yaa ayyuhal lazina amanu askurullaha zikran kasiran yéen ñi nga xam ne da ngeen gëm yàlla tudd leen ma tudd bu bëri soo defee junne agagoo ci soo defee ñaari junne agagoo ci soo defee ñetti junne agagoo ci lu bari yàlla moo tax yàlla wax na ko mais dafa tënk déggin mooy am suñ tubaab daf ne suñ ko su jàngee te déggu du sotti dangay jàng am déggin. kon yàlla borom xel yi lay wax. borom xel yi loolu la wax di. daf ne moom moom hikma xam-xam bu rëy bii sax dégg la wax ne moom moom hikma hikma nag ko jox ku ma soob waaye ku ma ko jox jox waaye wa maa yasakkuru ila ulul ba mu jeexal laaya bi ma ko jox lu borom xel yi laa koy jox moo tax loolu dañ koy jagleel nit mu am ko amul ku ko warta am nag lii li ci nit ñi waroon def mooy ñu xam ne dañ am sens yombut ci jamono koo dem julli leen xoor leen def leen nii daf leen lale daf leen lale li ñu wax yépp baax na waaye li ñu waroon jiital mooy xam leen yàlla wax naa ko benn waaye mu ne amul benn addis bu indi ci alquran bu wéral taarifu ne qabla an ta'budoon boobu ngeen di waral addis boobu wérul ma ne addis de su wérul sax te alquran ñëw ci dañ koy jëfandikoo gis nga ñun li yor li ñu yor jamono gis nga ni mu taqee rip ma mhm. tontu ci loolu mhm. gis nga ni mu taqee de mhm. xam ne ñëpp a ngi am bakkaar ku ci man sa bakkaar jeex ah. déet da yàlla moo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sooratu muhammad xamal laa ilaha illallahu nga jéggalu sa bàkkaar ñu jéggal la fahalam annahu laa ilaha illallah wastaghfiru bi zanbika yow muhammad xamal laa ilaha illallah nga jéggalu sa bàkkaar ñu jéggal la ñu ne ko ndax yonent bi rek yàlla ne déedéet wal muminina wal muminaati ak ñu gëm yàlla ñu góor ñi yàlla ñu jigéen ku xam laa ilaha illallah nag laa wax ko xam secret ku xaw moo tax sëñ tubaa dem na bi muy firi aaya bi sëñ tubaa wuy bu muy alquran ñoom ñëpp la nit yàlla yëpp sëñ tubaa nag nee na amul tiijaan amul murit amul xaadir mu ne ñëpp war a xam yàlla xam nga li mu wax mm-hmm. mu ne wérdu boo mën a jàpp ci masalikul jinaan moo xam dafa askanu ci cheikh abdou qadir jeylaani wala cheikh amadi tijaani wala ñeneen ñeneen ñeneen ñu du mm-hmm. ñooña mm-hmm. sëñ tubaa nee na seen ngir wérdu ya moo yóbbu nit ci kanamu borom kon tiijaan bu xamul yàlla nu mu ko nekkee murit bu xamul yàlla nu mu ko nekkee xaadir bu xamul yàlla nu mu ko nekkee bëgg mbir ak li nga bëgg nga am ko bokkut ku yaa ngi ngar-ngari millions yi nga bëgg waaye bëgg ak am bokkul le mbir yi nañ ko seet nañ ko am nañ ko jëriñoo man xaw ma tijaana mu di de kilifa yu bari tey dimbale naa leen ñu dem jëriñoo ji seen bopp suñu laajee ndigal ñu jox leen ndigal ñu yóbbu xamal seen njaboot yàlla ñu xam yàlla ah tabarakallahu yaakaar naa ni Cheikh Souleymane fi ne ni na yaakaar naa ni ku fi toog rek te amul dégg te bëgg lu baax xam ni euh, ñii seeni i mbir dañ ko xoolaat. te xam ni ah danoo yem ci ñi nga xam ni euh, fa la noo yem waaye bu nu xuusee dugg ci biir ba dem fa nga xam ni ñoo sës dëgg ci Cheikh musa danaan la wax dëgg-dëgg euh, li ñuy doxee ak fi nga xam ni fa la nu toll. Cheikh Souleymane nga tàggoo. gis naa borom télé yëpp borom rajo yëpp. gis naa bëgg lu baax biñ nekkee ité biñ nekkee di dimbali doomu aadama yi niñ nekkee di yaatal xam-xam pour mun a àgg fu nekk nu mu nekkee président la république adduna bi président euh, euh, euh, président Amérique président France fu nekk ci adduna bi ñu ngi jaaxle ci leen mooy luñ gis reyante bi dox ci adduna bi mm-hmm. nañu fexe jaxasoo ñun ñu dimbale nit ñi ñu xam yàlla loolu jeex. billaahi wallaahi tallaahi. kon kon kon kon sama ñaari caméraman yi ku ci mel ni xaalis boobu wala buuba mi bu ñëwoon fi ne ni nga nga àggal leen. dañuy bëggante suñ xasee jàppante waaye kii ne sëñ Tuubaa laa yaakaar kii ne yàlla laa yaakaar kii ne yonent bi laa yaakaar ñuy xuloo barke nangam saaga barke nangam saaga ba ah dañu amul yàlla suñu amoon yàlla rek bëggante suñu amoon yàlla rek nekk benn suñu amoon yàlla rek loxo. waaye fitna am na fitna bari na te suñu amoon yàlla loolu yëpp jeex bawuñ kenn président yi bépp président njiitu Futurs Médias ak bépp njiit ci télévision bañuñ ci kenn xeebuñ ci kenn képp ku ne ci nguur boo génn àdduna te xamoo yàlla jëm nga ci nguur boo xamut ku ne ci nguur gii nag xam sa borom nag laq secret yàlla nag xam yàlla nag ba nga xamoon ba ngay ñëwaat dugaat nga beneen nguur bu ëpp nguur bi nga nekkoon ñun dañ bëgg ni yow ñu musal leen charia li gën a bari charia attanatu nit ñi sëriñ gi laay waare sax su weetee jigéen ak ci biir néeg mu ngi ci leneen charia attanatut nit ñi lu ëpp doole ci nit charia attanatut leen li koy ñi def nag mooy dañ amut aqiqa dañ amut aqiqa suñ amoon tawhid rek mucc kon fi leen moom ku takk moom ak bàkkaar moom bu ñëwee rek billa déet ko wax de soo xamee laa ilaha illallah nga jéggalu sa bàkkaar ñu jéggal la alhamdulilah mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah euh, lii la sa Moussa Cissé oote waaleykum salaam wa rahmatullah kooku mooy Cheikh Souleymane Euh, lii la Cheikh Moussa Cissé woo woote njàmbe daaru euh, mu ngi noonu yaakaar naa ne émission bi am na solo neex na neex goo xam ne jégg na doy yàlla rek mooy li am solo euh, yàlla rek a neex ci xol <laughs> yàlla rek mooy dëgg ndax ku dugg ci bàmmeel da nga xam ni yàlla rek a wóor yàlla na nu yàlla fayal mag yàlla na nu yàlla fayal si Ahmadou Bamba amiin amiin mi nga xam ni daf nu jële ci lëndëm tabbal nu ci leer mbokk mi ngi noonu waaye kii nga xam ni tamit moo tax émission bi am Euh, di kenn ci man di sama xarit di koo xam ni ku baax koo xam ni teraanga di jóge ci moom di ñëw ci man muy Cheikh Alioune Diouf bu Thiaré Azur yàlla boole nu bu yàgg-yàgg-yàgg muy koo xam ni ku bëgg Cheikh Souleymane ku ko sopp waaye jeex tamit ci pays bi waaye tamit euh, sopp lool Cheikh Moussa Cissé euh, ñu nuyu ko bu baax waaye nuyu tamit Cheikh yi Cheikh Souleymane yi nga xam ne ñu ngi ci jotaay bi daaw Cheikh Daouda Diong Cheikh Assane Diop Cheikh Mamour Diouf Cheikh Demba jong ak Cheikh Pape Ndiaye. ñoom ñëpp ak tabarakallahu soxna yi yëpp ñu nuyu leen. ziar leen mbokk yi mu ngi noonu waaye tamit nuyu képp koo xam ni yaa ngi seetaan émission bi. ak Omar ci réew mi ak bitim réew yëpp ba ci Cheikh Ahmed Dame. ak Cheikh Seydina Omar. ak Seydina Omar ñoom ñëpp ndeysaan ñuy ay Cheikh ñoom ñu nuyu leen. Euh, mbokk yi mu ngi noonu nii rek lañ koy toppee euh, waxtu jot. alxamis bu jot dana leen baax genn kër ci mag ñi waxtaane la nga xam ni mooy leeru yàlla waaye waxtaane tamit. li nga xam ni mooy euh, pas-pas bi nga xam ni jàmm bi euh, moom la war a taxawee ci diggam ak boromam ñu sant xaali bu baax santi euh, buuba bu baax a baax ci seen taxawaay ñoom ñoo nekkoon ci caméra yi ba émission bi mën a leer gi mu leeree mm-hmm. waaye sant ñoom ngañ si ak ñoom ma madame Gissé ak ñoom bamb mi ci monteur bi mm-hmm. sant Futurs Médias gépp ñaanal Youssou Ndour tamit tabarakallahu mm-hmm. ak maawa ñoom ñëpp ñu ziar leen mbokk mi ngi noonu dox leen dig daje incha allahu geneen kër ak geneen mag wasalaamu aleykum wa rahmatullah ñu tëjee ko يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بي يا محمد يا محمد يا حبيب الله